danoo tolloo nag ci wax fukk yoo xam ne sëriñ bi daa wax ne képp ku di taalibe mënta ñàkk a taqook fukk yooyu ndax moo moo tënk yoonu gaañu baax ni ba njëkk mooy mu am ab jubluwaay mooy wane ne am na moom fu mu jëm am na fu muy tukki ba ca toppit mu am ko koy tegtal yoon woowu mu jaar ngir tukki niki ab sëriñ bu am fatxu ba ca topp mu am ab yóbbal ci yoon woowu mu nekk ci tukki boobu yóbbal bi mooy ragal yàlla ba ca topp mooy mu yor ngànnaay ci yoon wi ngir lépp lu ko nar a faagaagal te loolu mooy takku takkoogu mi takkoogu làpp tey kon noo ngi tàmbalee minha siraaju bi zikrillaahi jalla ala minha al mataaya bi himmaatin aliyaati bokk na ci fukk yooyu mu am làmp boo xam ne moom la yor ci yoon wi di niitu ngir mën mucc ceeg lëndëm làmp ku nekk ci yoonu yàlla nag mooy ak tudd yàlla tudd yàlla mooy làmp bi bokk na ci yooyu yu munta ñàkk mu am waruwaay ci yoon wi waruwaay ndaamar gu baax waruwaayu ku jëm ci yàlla nag mooy yitte yu kawe yi sàmmonteeg yitte yu kawe yi Sëriñ Tuubaa loolu ci lañ ko yare la woon maanaam yare ci yitte kawe kon taalib bi moom faw mu taqoog yitte ju kawe fu mu toll min hal okaasu bi ajzin wal xisaamu la daa ahli tariqati hazmun bil xaqiqaati waaye bokk na ci yooyu mu am ab dokk dokk boo xam ne moom lay sukkootoo maanaam du ci sukkandiku dokk ku jëm ci yàlla nag mooy ak lot maanaam saa su ne day wane sunu boroom moom ni mu tëlee ci yoon wi mu sóobu ak ni mu lotte di yaakaar ndimbalam saa su nekk ngir mën a yegg fa mu jëm waaye it ba ci topp mën mooy ci wi ñàkk mooy mu am laxasaay laxasaay gu dëgër gu mu laxasaayoo ngir mën a dox dox bu dëgër ba yegg fa mu jëm laxasaayu ku nekk ci yoonu yàlla nag mooy way ci xaqiqa yi buñ ne way ci xaqiqa yi mboolem xeetu jaamu yàlla gu ne daa am biir ak bitti buñ ko doon misaal ci julli dañ naan daa am biir am bitti gi mooy li sariya di jàngale waaye nangami rakkaa la boo defee nangam sa julli na ak yu mel noonu loolu mooy bitti biir gi nag mooy xaqiqa la ngay seq ak sa boroom ci jaamu yàlla ga teewlu nga ngay teewlu ci sa xol na koy sellale nga xam ne loolu moom rek moo koy mën a atte loolu mooy xaqiqa kon nag nit ki daa war a way ci jaamu yàlla gu nekk mu sàmmoonteeg xaqiqa ja maanaam dëggi dëggi mbir jaamu yàlla ga ba sunu borom mën koo ko nangul wa min lawazimiha min haajuha abadan wa huwa shariatu fi bad'in wa gaayaati bokk na ci yooyu ñuy taqoo ci yoon wi mooy am am ngir ndax nit mun la tukki tam mu ne ni yoon sàngam laa jaar kon am ngir munta ñàkk ba faw ngirum ku jëm ci yàlla nag mooy sharia ci buy door a jóg ak buy yàgg yépp foofu li ñu fiy déggee rek mooy ñu xam ne maanaam nit mënu la sóobu yenn yoon ba jéggi sharia ba ñu wax ne diw sharia atteetu ko moo tax mu ne fi bat in wa ci booy door a tàmbali ak bu demee ba àgg ca dayoo ba mun la ñàkk tegu ci ngirum sariya saa su ci kaw sariya la war a dox wa rufqatun ma hiya ixwaanun lahum himamun maa al wafaai bi sidixin fil uxuwaati fukkeel ba rek mooy mu am ay àndandoo maanaam yoon wi bu ci wéetee moom kese di ca dox mën na amee jafe-jafe waaye àndandoo maanaam groupe boo xam ne ñooy àndandoo jël yoon woowu lu ci am solo la ñenn ñooy àndandooy ku jëm ci yoonu yàlla mu ne ay mbokki taalibe yoo xam ne nii ñoo bokk jenn yitte ju leen yëkkati waaye ñu doon ñoo xam it dañoo matal kóllëre boole ko dëggu ci mbokkoo googu ñu mbokkoo kon ki nekk ci yoonu yàlla du ku ko neex lay àndal ki mi àndal daa war a doon koo xam ne ku dëggu la ci ne ay mbokki taalibe lañ waaye daa war a doon koo xam ne ñoo bokk jenn yitte lu leen tax a mooy dem ci seen borom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu